واغتنا من إلى الإسلام مع ترك المحال جواد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر جليننجي أبو ذر رضي الله عنه يالنا يالا جرمكو قال من قال للنبي صلى الله عليه وسلم yonentu dal na yàlla saxal xéewalam ak muccam ci moom wax na ma laa taxqiranna bul xeeb mukk mukk noonu tawkiit saqiila la laa taxqiranna bul xeeb mukk mukk minal maaruufi ci mbaax minal maaruufi ci luñ xam minal maaruufi ci njëkk minal maarufi ci teraanga minal maarufi ci jëf ju baax shay'an dara walaw an talqaa donte amoo ludul nga dajeeg axaaka sa mbokk bi wajhin ak kanam taliqin gay aju boyu taliqin gay aji rafet taliqin gay aji muuñ taliqin gay aji ubbeku su dee amoo xool sa mbokk dajeeg moom ubbil ko sa kanam dugal ga ngay dugal mbégte ci xolam ci ubbi gi nga ko ubbil sa kanam bu dee lool rekk rekk nga am bu ko xeeb def ko maanaam loo mën ci njëkk bu ko xeeb bu ko xaar defal li nga mën yépp joxe li nga am yépp te mën koo joxe su dee ne amuloo loo joxe lu dul ne kanam nga mën a ubbi bul xeeb loolu ndax loolu mooy buntu yiw yëpp rawaahu muslim xadis <clears throat> jaan ci muslim yal nañu yàlla may yàlla yaa rabbi may bi sallallahu alayhi wa sallam may ñu jikkoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam sallallahu ala sayyidina muhammadin ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim